na Bébé Saloum Bébé Saloum na xam nga nag moo fi mujj a daan jet Francesco wàcce na ci ay tànkam waaw Franc mbaru la bu mbaru mbapat la olympien la Bébé Saloum jokkaas saat na Bébé Saloum mujj fi daan ger bu zap ger bu zap loolu yàggul yàggul acca Franc wa Fatim Bébé Saloum jokkaas na Franc jàppal tamit la bëgg. Bébé Saloum bee ko ci mën a génne. moo ko ci waaye Franc gi fayu Franc gi riposte Fatim Diop da baax. ndeysaan muy première édition dara. ba Bébé a ngi dóor jàpp na Franc jàpp na Franc jàpp na hey hey attention jeex na Franc daan na Bébé Saloum jeex na moo ko mën. daan na moo ko mën. jàpp na Franc jàpp na Franc jàpp na hey hey attention jeex na Franc daan na Bébé Saloum.